économique amee nag ñàkkul problème yu ni mel dafay taxaw euh, club Sénégal émergent def benn xalaat bu yaatu jëm ci notamment sécurité alimentaire ak yeneen i ponk yoo xam ne joxoñ nañu ko euh, kilifa yi ngir ñu jaar fa loolu la ñu bëgg waxtaanee euh, ci jamonoy crise bi ñu toll sax euh, guerre ba ca Ukraine waral ko mais aussi mbas mi fi amoon ak yeneen i mbir yoo xam ne xëy na gën na ñëw yokk jafe-jafe bi ñu am mbégte nag dalal njiital club Sénégal émergent nekk itam PCA bu Sonacos monsieur Youssou Diallo ñu ngi lay nuyu am mbégte dalalaat la ci demb ak tey ngir waxtaanee li ma fi junjoo. waaw jërëjëf Adja Fatou maa ngi lay gërëm eh, di la sant ci émission bi et chaque fois que nga invité ma vraiment eh, day nekk émission yu am solo parce que nit ki dana réagir mais aussi ki koy poser question su ko poser les les les question questions et yu pert yi nga xam ni am na solo dina ci man tontu. et aussi sa professionnalisme maa ngi koy saluer et puis di réew mi Rewmi FM yëpp. ak mbooleem auditeurs yi nga xam ak ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu tey jii jërëjëf yooyu itam ñu lay gërëm si disponibilité bi également leeral yu am solo yi nga ñuy jox ndaxte nag euh, yàgg nga ci état mais aussi euh, borom xam-xam nga ci euh, fànn yu bari notamment yu ñuy waxtaanee yow lu laal wàllu koom. Mm-hmm. nga jiite club Sénégal émergent nekk itam PCA bu Sonacos tey ñu toll ci ma ko mënee wax urgence su am moom suñu bopp ci wàllu ñam muy autosuffisance alimentaire ndax crise économique ci la ñu nekk jafe-jafe yu taratar ci àdduna bi yépp mm-hmm. manqué bu manqué wul itam mi ngi cher a cher tension bu mag am ci bokk na tey ci diwlin mi nga xam ne euh, ci gerte lay bawoo yenn saay yeneen yi itam ñu koy jëlee ci tournesol ak yu ni mel yow nga jiite justement euh, Sonacos euh, tey lan nga jàpp ne moo ñu mën a dimbali ba ñu moom suñu bopp xëy na tey lu mel ni diwlin gi ngeen di gën di yëngu du manqué naka la ñuy def ba egg ci. waaw maa ngi lay gërëm di la sant ci loolu nga ma posé surtout def naa diwlin mooy meilleur firndeel daal li nga xam ni eh, moom la ñuy wax euh, ni suñu réew yi évoluer ci wàllu dund parce que euh, tubaab yi laata ñu ñëw fii xam nga euh, coloniser ñu eh, yàq suñu réew yi yàq suñu économie def naa ni jéggaani woon nu woon dund fenn bi ñu fi ñëwee nag xam nga nit moom soo koy moom d'abord da ngay jéem a moom da nga koy jëm daan ci wàllu larme maanaam mooy militaire E, mooy bu nanguwul nga nga nga nga moom ko et fii suñu maam yi bañoon nañu loolu waaye nag e, ñu ëpp leen gànnaay ëpp leen doole et teg leen loolu e, beneen mbir mi mooy bi ñu bi ñu daanee aussi à côté arme bi nga xam ne moo doon fetal ak kanook yu mel noonu et tubaab bi dafa jéemoon fexe num ñu niñ ko waxee assimiler mm. maanaam fexe ba suñu aada suñu cosaan et suñu dignité suñu xarbaax ñu na bëgg ñu nanguloon ñu seen xar baax seen aada baaxul mais aada tubaab mooy aada bu baax donc jëm ñu moom ci wàll woowu donc mu tënk xel tënk xalaat ak doxalin et moo indi woon école fils de chef ak yu kenn xamul ci réew mi jëm assimiler nit ñi ba sax tàqale sénégalais yi ci ñaari catégorie et ñi doon wax citoyen ñu maanaam quatre communes yi mm-hmm. Ndar Rufisque gore ak Dakar e ñi ci des ñun leen ay indigènes lañu maanaam ay sénégalais yoo xam ne daal et de seconde zone e gannaaw loolu nag aussi euh, ñu fexe ba indi économie maanaam koom-koom koo xam ni léegi dootul sukkandiku ci euh, li réew mi bëgg li muy dundee te bu yàgg ci dund Eh, mu fekk ñu doon ay nit ñu wér macha allah nekk nit ñu am kattan ñoom sax loolu la daan waxee ñoom daal li leen jaaxal mooy nit ñi def ba nekk ay nit ñu am kattan nit ñu wér. e indi fi xeetu dund yu bees. Eh, léegi nag économie bi ñu fi indi gerte amu fi woon ñu fexe ba indi fi gerte. ceeb bi nit ñi dugub lañ daan dundee ak yu demee noonu. e ñu fexe ba indi fi ci presque kooku loolu yàggul ci diggante. première guerre mondiale ak deuxième guerre mondiale eh, ci lañ fi indi espèce su ceeb boobu ñuy wax dugub picc nga xam ni. Eh, nit sax du ko lekk. Ah, riz brisé waaw maanaam muy loo xam ni petax yeeg yu mel noonu. Eh, lañ ko daan jox waaye xam nga ñun Sénégalais suñu xereñ ñu fexe ba loolu mu gi nekk ceebu jën bi ñuy wax. ci ceeb bu sew nangam nangam ak yooyu alors que ceeb bu sew. feneen kenn du ko lekk. voilà donc euh, lii mu door nag. di destructure dëwlin. et liñ ko daan lekk barewul woon trop. suñu alimentation dawlin lu ci néewoon la amoon na ci waaye dawlin yoo xam ne daf daan jóge ci ci gàncax gi e ñu defar ko wala bu dee dawlin bu ñu jéggaane bitim réew seen lañ ci daan lekk barewul parce que cere lañ daan lekk euh, ak xeetu yu mel noonu ñu fexe nag ba imposer ñu seen alimentation et ci loolu nag la gerte ñëwee ci réew mi parce que euh, raay bi ñu dugal bi taxoon laaj yor bañ tubaab bi dugg ci biir réew mi li waroon doon raay bi mooy fexe ba gerte dugg ci biir biir réew mi et loolu nag bañ ko defee Sénégal dugg ci gerte gerte ñu koy bay et di ko di ko di ko yóbbu seen booba gerte gi dañ koy bay fii liggéey ko fii maanaam usines yi fi nekkoon moo doon Lesieur moo doon Petersen moo doon Sodec ak yu mel noonu après sax ci la SEIB ñëw ci Diourbel et ñooñu di ñi fi bay gerte di ko transformer ci réew mi et li ci ëpp ñu koy exporter bitim réew et la ca des et mu des ci réew mi donc wàllu woowu sax amoon na auto autosuffisance ba bi ñuy jël indépendance ba ci euh, millier année presque début année quatre-vingt yi Sénégal loo fi doon wax ci dëwlin parce que Sonacos ñu ngi ko sos ci 1975 bi président Senghor nationalisé Euh, les sieurs euh, SODEC ak euh, plus tard SIB def que benn huilerie bu mag boo xam ne non seulement mooy jënd lépp ci gerte gi amul woon ay exportateur amul woon ay OPS ak yooyu ay coopérative ñoo fi nekkoon ñu daan jënd gerte gi ñoo koy daan bay jaay ko ci point de collecte yi Sonacos ñëw jënd ko et bu ko jëndaan et defar dawlin donc réew mi dëwlin bi ñu fi daan lekk muy dëwlin boo xam ne dafa jóge ci gerte maa ngi fàttali ni gerte dëwlin yëpp gannaaw soja da gannaaw la olive moo gën ci xeetu dëwlin waaw parce que non seulement dëwlin bu woyof la mais dëwlin bu ñeme taal maanaam dafa dafay dem ay température yu mag mais aussi li ñuy wax acide gras saturé maanaam mooy xeetu mbir yooyu nekk ci biir dëwlin mm. nga xam ne bu demee ba tàng lool mën na jur feebar yu mel na cancer donc euh, dawlin nekk loolu ba léegi nag bi ñu yàlla di bi ñu demee ba ca kanam tubaab yi yeewu suba nii particulièrement FMI ak Banque mondiale bi ñu defee plan d'ajustement structurel yi xam nga plan d'ajustement structurel yi presque mën nañu ni soixante-dix-neuf la presque ba fin année 90 donc disons 97 98 donc duré na presque 19 ans et ñu ni d'abord il faut que ñu démanteler ce qu'on appelle le secteur parapublic privatiser entreprise yi yenn yi sax ñu ñu tasaare leen def naa moo fi juróon li mu fi juróon ba ñu xam ka ca loolu nag lañ ni d'abord il foog ñu libéraliser li ñuy wax euh, njënd ak njaayu dawlin ñu ne léegi képp koo xam da nga nekk ci réew ma bëgg nga dem bitim réew jëndi dëwlin nga dem mën nga ko dem jëndi Sonacos monopole bi mu amoon non seulement di defar gerte moom kese mais aussi di ko transformer mais aussi bu demee sax ba dëwlin xaw manqué ci réew mi et ma sax manqué dëwlin gerte waaye nag euh, dëwlin gerte xam nga dëwlin de de luxe la waaw dafa cher waaw dëwlin de huile de luxe la waaw daa maanaam boo ko waxee xëy na baadoolo léeg-léeg wala ku néew doole ci wàllu koom-koom doo ko mën a doo ko mën a jëfandikoo moo waral bu boobaa ñu gouvernement bi daal ne woon compte tenu ajustement structurel ak nit ñi sonne woon et dëwlinu bi jóge ci tiir mooy huile de palme ak beneen bi jóge ci soja ak tournesol dëwlin yooyu ñoo gënoon yomb fuuf euh, dëwlinu gerte léegi nag ñu ni eh, ci wàllu koom-koom li gën a di xel mooy xëy na gerte gi nga xam ni cher na te waa bitim réew bëgg nañ ko ñu jaay ko bitim réew eh, ñu importé dëwlin yu yomb yooyu muy palme muy soja muy tournesol et puis ñu jaay ko ci biir réew mi pour que eh, néew ji doole yi mën na jënd dëwlin boo xam ni du cher xam nga kooko boo ko déggee lu mel na ni lu lu baax la lu kii ci nit ñi waaye nag bu sa xol xel xel guddee tuuti nga dem danga naan kii kat bu yàggee eh, mbayum gerte bu tendance yi retourné woo rek njëgu gerte wàññeeku sur le marché mondial eh, presque non seulement nit ñi dootuñu mën a continuer di bay gerte parce que njëg bi dafay néew. Mm-hmm. waaye nag eh, usines yi nga xam ne ñoo fi nekk di transformer di jur di joxe ay liggéey di fay ay solde mais surtout croissance Sénégal dafa àndoon ak ni huileriers yi di di kiiwee bu fekkee ni. huileurs yi transformé nañu gerte gu bare mm. da nga daan gis taux de croissance bi jóg lool. mujj gi bu fekkee nag aussi huileurs yi dañu nekk ci ay jafe-jafe mm. comme période sécheresse yi. et euh, taux de bi dafay wàcc. donc neen lañ demee ba non seulement réduire Sonacos mm. à sa sa plus simple expression. mais fi mu mujjee gis ngeen ko bi président Abdoulaye Wade ñëwee ci la ci la jaay Sonacos. groupe Advance euh, particulièrement ki jigéenoon xam muy Abbas Jaber donc kooku defe naa ni ay 2005. Euh, ci la amoon. et gis nga résultat ba mooy non seulement lañu ñu diggoon ci investissement defuñu ko. waaye nag Sonacos dem na ba mujj gi bi ko président Macky Sall di jëlaat en mille quinze pratiquement Sonacos mënatul woon fay solde. Sonacos euh, presque dafa nekkoon en situation de faillite. amee bor boo xam ne ëpp na soixante milliards. am ay déficit yoo xam ni at mu nekk dafay cumuler dem ba mujj gi sax. Euh, campagne bu mujj bu euh, Suneor parce que dañ ko tudd soppi woon tur bi euh, dindi Sonacos bi tudde ko Suneor mm. et 7000 tonnes le le Sonacos jënd ci booba ci kii Suneor ci campagne bu mujj mm. et li mu doon jaay ci dawlin ci réew mi mata matatul woon mille ton alors que besoin consommation réew mi ci dawlin 200000 tonnes la mm. donc à travers gis nga dawlin mm-hmm. gis nga ni réew mi jóge ci situation presque autosuffisance euh, jóge ci situation boo xam ni euh, réew mi dafa moom moomoon boppam di bay li muy bay di ko transformer ci réew mi campagne bu musaan jot traite ñëpp a koy wax parce que non seulement ci jaay beeg jënd bi liggéey yu bari dañ ci daan am ci li ñu daan wax point de collecte yeeg seko yi ak yooyu boo demaan Saalum nga dem Fatick nga dem jurbel nga dem Touba nga dem Thiès nga dem dëkk yu mel noonu dem Ziguinchor dem Kolda ak yooyu vraiment da ngay xam ni ak Louga da ngay xam ni vraiment réew réew mi mi mi ngi mi ngi ci campagne bi boole ci ñi nga xam ni aussi dañ doon wut contrat soit nekk ay contractuel Sonacos walla ñu euh, nekk ay saisonnier euh, ay junni junni junni nit lañ daan jël mais dem nañ ba mujj gi euh, non seulement permanent yi dañ leen mujj def plan social réduire leen ba matatuñu presque deux cents mais saisonniers yi ñu daan jël ay junni junni nit dem na ba ay téeméer ak lu teg yooyu la ñu doon jël. donc gis nga loolu en fait li mu def ci réew mi. voilà donc euh, euh, daal euh, loolu nag boo ko seetee mooy eh, mujj gi culture céréalière yi aussi gis nga ni dugub yow suba di dellu gannaaw. ceeb di gën a jël doole nga xam ni et commerçant yëpp presque ñi ci ëpp ci. dem jëndi gerte bitim réew jënd ceeb bitim réew ñëw jaay ko ci réew mi donc loolu mu mu rey li ñuy wax culture céréalière dugub mboq ak euh, yu yu ak suuna saaño et cetera yu mel noonu ba ba ba ba néewal néewal néewal néewal leen doole et boo ko seetee aussi ci wàllu yeneen fànn et truc kooku nag bien sûr am na action tubaab yi mais aussi am na ay facteurs yoo xam ni yoo xam ni aussi euh, yu ñu mën wax noo yoo xam ni yu yu yu yoo xam ni kii. yu bàyyeekoo ci ñun la. waaw yu bàyyeekoo ci ñun mais surtout ak sax ci environnement bi climat bi. parce que Sénégal bu ñu fàtte nii presque vivre na lu toll ci ñaar fukki atu sécheresse. Hmm. diggante année début année soixante dix yi et particulièrement sécheresse soixante douze yi ba presque bi euh, Diouf di waaj dem. maanaam booru 97 98 presque ci la nawet yi dellu si waat yéen a ngi fàttaliku defe naa Youssou Ndour am na morceau bu mu defoon maral mm-hmm. defe naa kooku eh, ku xaw am tuuti at mm-hmm. defe naa ay 85 defe naa côté wala wala un ci fin wu année 80 yi mm-hmm. defe naa ci la ci la ci la defoon lool donc daal gis nga suñu réew yi dañu nekkoon réew yoo xam ne dañu mooman seen bopp ci seen man sax bëgguma di wax ci autosuffisance ci wàllu lekk waaye moom sa biir laa koy tudde man ne daa moom sa biir <laughs> waaw parce que lekk moom ci biir la jëm mm-hmm. mais boo euh, moom sa réew d'abord mu ngi doore ci moom sa moom sa biir e bi ñu demee ba ca kanam nag tubaab yi aussi indi nañu yeneen xeetu pexe mm-hmm. pour gën ñu mën a noot ci eh, suñu dund ñu koy jéggaani kooku nag mooy conceptu sécurité alimentaire parce que bi ñu fi indee privatisation yi ak parce que yooyu yëpp mu ngi jógee ci li ñuy wax le consensus de Washington. Mm-hmm. et nga xam ni ci euh, début année quatre vingt yi. Mm-hmm. ci lañ ko def banque mondiale FMI ak euh, le triomphe du libéralisme. Mm-hmm. et dañ ni léegi réew soxlatul muy am autosuffisance maanaam li muy dundee. mu koy mu koy euh, liggéey ci réewam. ba am ci lu doy. ba am ci lu doy. ñu ni léegi am lu doy doyatu dootul problème. amatul njëriñ léegi liy problème bi daal. mooy réew mi na fexe ba di exporter et ba nga xam ni dina am ci gafakaam loo xam ne bu bëggee jënd dund mu jënd ko fa gën a yomb ci àddina si xam nga piège la maanaam naxaate la boo xam ni eh, bi dérèglement amee ci marché mondiaux mm. eh, situation économie àddina si eh, gis nga ni mu perturbé woo mm. defe naa ni Covid moo gën na ko leeral et conflit bi diggante Ukraine ak ak Russie mm-hmm. ba nga xam ne léegi e ñoom demoon nañu ba ku tudd autosuffisance alimentaire sax dañ lay xeex mm-hmm. voilà mais mais naxaate la woon léegi nag defe naa suñu réew yi sax waxatuñu autosuffisance <laughs> waaye léegi defe naa ni euh, souveraineté alimentaire la ñuy wax mm-hmm. maanaam dootuñu yem rek ci ci bay waaye lépp xeet du ñuy dundee dañuy bëgg fexe ba moom ci suñu bopp maanaam moom suñu bopp nag ci wàll woowu mooy moom suñu biir ba nga xam ni xam nga nit moom bu amee lu mu lekk am lu mu naan leneen loo ko xëlamtoo eh, eh, xëy na war na ko mën a muñ mm-hmm. waaye nag biir moom bu ci bu ci dara nekkul eh, kooku daanaka day nekk jàmm fa ci ci ci lu gaaw mm-hmm. voilà d'ailleurs d'ailleurs loolu gis nañ ko ci situation bi ñu toll ndax président Macky Sall en tant que njiital Union africaine mujjee na sol euh, dàllam dem ba Russie waxtaan ak président Poutine ngir xëy na yu bari nga xam ne Afrique daf koy soxla te ñoom muy bàyyeekoo ca ñoom ñu mën koo teggi tànk est-ce que tey avant crise bi amul woon yu jiitu yoo xam ni waroon nañu am luñ ci jàng 1930 2008 yooyu yëpp jamono yooyu amoon na ay jafe-jafe yoo xam ni euh, waroon na xëy na tax ñu defaraat suñu toogaay ba taxaw ci teg xëy na politique autosuffisance wala souveraineté yu leer est-ce que leçon euh, jàpp nañ ko ci ci crise yi ñu weesu. waaw xam nga néew doole dafa xaw doy waar ci baaxul ci nit mais so ci réew la gën bone parce que depuis Senghor eh, gis ngeen mode bi xeetu politique parce que nit ñi ñu doon jiite. Mm. muy Senghor muy Abdou Diouf muy Ablaye Wade ku ci nekk ak président Macky Sall am na jéego yoo taxawal ci wàllu politique. Ah, jéem nañu voilà gis nga bi Senghor nga xam ni ñëpp dañ doon wax presque tubaab la. Hmm. mais Senghor moo nationalisé usine yi fi tubaab yi amee woon yëpp en 1975 sos Sonacos Sonacos ci ci Senghor la. Senghor moo fi defoon la politique des terres neuves maanaam. bi euh, maral bi gënee tar ci diggante surtout région Fatick région centre yooyu Diourbel jëm yooyu et moo dem ci yenn zone yi nga xam ni mi ngi nekk ci booru Koumpentoum jëm Tamba jëm euh, yu mel noonu Kolda def li ñuy wax de la politique de colonisation mooy mooy expliqué tey jii suñu mbokk séeréer yi nga xam ni boo demee Sall boo demee boo demee dëkk yooyu nekk ci boo génnee Tamba tuuti et eh, ñoom banaan boobu ngay wax tey jii ñoom di ko lekk te mu am solo ci réew mi ñoom ñoo koy bay ñooñu dañu jóge fii ñu nekkoon eh, dem dem foofu ensuite li ñuy wax les sociétés régionales de développement Senghor moo ko moo ko sosoon donc euh, depuis SAED Sodagri Sodeva Sodeva liggéeyam essentiellement moo doon fexe ba Sénégal am une autosuffisance céréalière particulièrement dans le domaine du mil donc lépp looy gis tey jii ci productivité bu Sénégal gagné en matière de culture céréalière avec Sodeva la te Sodeva bi ajustement structurel ñëwee hmm. dañ ko tas hmm. ni encadrement jaratul léegi il faut faire li ñuy wax la vulgarisation hmm. ci la ñu créé ay PNVA ak ak yooyu yëpp ba mu évoluer ba tey jur jur li ñuy wax ANCAR donc euh, xeet yooyu euh, SAED SODAGRI SODEFITEX Euh, pour euh, coton bi parce que coton bi ñoom ñoo ko fi indi mais en vérité coton bon Sénégal euh, am une production de coton bu nekk ci niveau Burkina wala Côte d'Ivoire mënul nekk Sénégal production coton yu gën a am solo yi mu def cinquante mille tonnes la là où le Burkina ak Côte d'Ivoire di def lu jege neuf cent mille un million wala deux millions voire trois millions trois millions de tonnes pour boo demee Côte d'Ivoire donc xam nga kooku mënoon nañ fa bay leneen te dafa nekk mbay moo xam ne bu xaw xaw kii la mais kooku euh, société française yi CFDT ak yooyu ñoom ñoo fi ñëw impose ñu impo imposé parce que dañ ko soxla voilà donc wax naa la ci Senghor wax naa la aussi Abdou Diouf gis nga bi mu ñëwee bi ñu gisee ni problème ndox daf fi am dëgg-dëgg ci réew mi et dafa dugg non seulement réew mi yëpp mu def ko ay for di ci du def ay forage yéen a ngi fàttali ko ba Ablaye Wade naan monsieur forage madame Moulin <laughs> et ensuite beneen bi gën a majeur te mu def ko te ñu bari di ko fàtte ci Abdou Diouf mooy les barrages hmm. bi muy koy def ñu bari d'accord ñu ci woon ak OMVS hmm. mais defe naa ni barrage tey jii bu ñuy wax politique nationale d'autosuffisance en riz hmm. bu ñuy wax tout eh, tey ji performance yi ñu am ci wàllu euh, horticulture ak yooyu parce que la la plus grande zone aujourd'hui de production euh, de horticole dootul les Niayes mm. mais c'est la vallée ah. du fleuve Sénégal mm-hmm. donc kooku bu ñu amuloon barrage ñu ko mën mm. politique autosuffisance en riz bi ñuy wax ba ñu fi kon et ensuite am na ay politique yu mu defoon je me souviens euh, bi ñuy pour fexe depuis booba mm. de nous passer du du ou de réduire suñu dépendance en blé yéen a ngi fàtte que le les fameux pami blé mm. maanaam mburu li ñuy li ëpp ci blé bi ñuy dugal ci réew mi ci mburu lay dem mm-hmm. mburu xam nga xamuñu ko woon mm-hmm. fondé lañ daan ndékkee et cetera ñu indi fi café ak meew indi fi du yeneen mm-hmm. ak di ñu di ñu di ñu lekkaloo mburu et Abdou dem na ba mu mujj gi euh, opération pami blé boobu était question dem ba au moins cinquante pour cent déparé ko ñu jël céréales yi nga xam ne moom la ñu béy ci réew mi. ay mburu dugub bari woon na. voilà ñu ñu dugal ko ci. Mhm. loolu demoon na bay avancé et aussi di xeex ci mentalité yi. Mhm. pour que nit ñi nangu ñuy jëfandikoo li nekk ci réew mi parce que li ñu doon importé ci bële. dafa dafa dafa dafa bare woon. et initiative consommer sénégalais kooku depuis depuis booba. waaw donc pour décomplexer nit ñi. et président Abdoulaye gis ngeen bi mu ñëwee ak la Goana. Mhm. la grande offensive. voilà la grande offensive pour la pour la pour la pour la nourriture agricole pour la nourriture mm-hmm. et l'alimentation pour l'abondance et, et, et, et l'alimentation mm-hmm. et le programme national de surveillance en riz ñu wax particulièrement le PNAR mm-hmm. euh, Ablaye Wade moo ko lancé c'était sous Ablaye Wade donc euh, Goana gis ngeen engouement bi mu fi indi woon maintenant aussi le plan REVA retour volontaire à l'agriculture parce que gisoon na aussi importance mbay mais yooyu ñu doon engagé yëpp euh, président Macky Sall gis ngeen bi mu ñëwee moom première priorité ci PSE mooy mbay mooy doon li nga xam ni mooy nekk euh, daal euh, mooy nekk moteuru développement réew mi parce que ñi ëpp ci Sénégal ci mbay la ñu nekk te am nañ ci potentiel boo xam ni suñu ko utiliser dinañu mën dem gis ngeen li mu dugal ci alal euh, ci mbay mais aussi gis ngeen performance bi mu ñëwee ba léegi demoon nañ ba yaakaar ni un million de tonnes gerte kenn mootu ko am mais léegi Sénégal euh, mi ngi tàkki les deux millions de tonnes d'arachide et gis ngeen ci wàllu ceeb aussi bi euh, Ablaye Wade di dem production ceeb àggul woon quatre cent mille hmm. mais léegi Sénégal a ngi ci def ëpp un million deux cent mille tonnes. voilà mais bien sûr aussi euh, performation yooyu da nga koy euh, lëkkaleeg ni nit ñi yokko parce que euh, bi fi Senghor nekkee trois millions la ñu woon trois millions cinq cent mille sénégalais. ak itam mbay mi mbay na. voilà jumtukaay yi yokku na. investissement bi aussi yokk na. dëgg la dëgg la dëgg la mais surtout que ni nit ñi yokkoo. l'évolution démographique parce que. on était Sénégal ñetti million la ñu woon en euh, euh, dans les années soixante léegi ñi léegi ñu ngi tàkkine dix-huit millions de personnes donc ça veut dire que population bi presque multiplié wu na par presque cinq quatre bu tegal lu bare donc xam nga kooku progression bu gaaw la te production yi euh, ci mbay mi ci feneen e, évolué wul comme noonu nit ñi yokko kooku contrainte la beneen bi mooy aussi suñu réew yi euh, nekkoon nañ fi situation endettement bu metti d'ailleurs moo indiwoon woon ajustement structurel yi te xam nga boo nekkee situation endettement booba jamono yooyu réew mi problème am mooy weer bu dee nu muy def ba fay solde yi e nu muy def aussi ba fay bor bi mu yoreel bitim réew ak dette intérieure bi xam nga kooku du tal def investissement pour am ay autosuffisance ak yooyu nga xam ne da mën na xaar alors que jamono boobu mën nga dem importer ceeb boo xam ni xëy na ceeb bi ñuy bay ci réew mi eh, njëgu ceeb boobu ngay jënd bitim réew eh, xëy na def koy yées au moins genn wàll gi waaye nag loolu ngay gis yëpp naxaate la parce que ceeb bi ñu fi indi eh, meew mi ñu fi indi ak yooyu yëpp muy jóge ci mbayu dëkku tubaab yi et dañuy def lu ñuy wax subvention maanaam seen gouvernement yi daf koy maanaam prix yi ñuy jaayee fii mhm. ci yooyu du li ñuy wax ay prix réel mais ay prix subventionnés c'est des prix artificiels mhm. bu nu ñëwee nag bëgg ñu imposer ñun suñu réew ñu fexe ba nekk ci coût de niveau coût de production ak productivité réew yooyu du du mën nekk mais léegi nag bi àddina bi tasaaroo Covid bi am ak yooyu yëpp am na yu bare léegi mi ngi door feeñ voilà donc euh, E, ci président Macky Sall def na ay ay performances yu remarquable ci wàllu woowu waaye nag ba léegi e, ci e, option yi ñuy def ci wàllu mbay ba léegi moyen yi ñuy dugal yi ñuy dugal ci mbay ba léegi néew na par rapport ak li mbay bu mu nee mbay nag da ngay jàpp mbay càmm mhm. napp ak même environnement ressource naturelle da ko ci dugal. donc saa bu mënee mbay rek. Mhm. jàppal ni yëpp ci la bokk ci la ci la ci la ci la bokk parce que euh, la conférence de Maputo bi de réunir loon dëkku Afrique Afrique UA euh, euh, léegi nekk Union africaine. Mhm. dafa waxoon pays Afrique yëpp fexe ba balaa moo yàgg def naa date boobu weesu nañ ko. Mhm. ñu jël dix pour cent ci seen budget di ko def ci mbay bi mais tey jii boo demee réew yi ko jege wala ñu weesu ko. Euh, daanaka boo amee aussi barewul voilà donc euh, kooku pour mu firndeel la nii au delà de li ñu ciy wax mm. et li ñu ciy dugal bien que depuis vraiment président Ablaye Wade ak président Macky Sall loolu yokk na bu baax a baax mais vraiment euh, boo defee économie comme man mën a jàng budget mën a xam mm. par li ñuy def ci yenn secteurs yi ak yooyu mm. li ñuy def ci mbay ba léegi def néew na par rapport ak ambition nga xam ne am nañ ko ci. kon mën nañoo jàppee ci li nga wax ne autosuffisance moom mënaguñ caa àgg léegi. ah si ñu ngi def nañ ci ay jéego jéego yu mag parce que euh, yow euh, boo amee un million euh, six cent mille tonnes un cent mille tonnes padi nga am autosuffisance et nga jógee quatre cent mille tonnes dem ba un million deux cent mille tonnes ah, daan nga def def nga jéego yu bare. ci wàllu gerte aussi ay six cent sept cent mille tonnes lañ daan am. mais léegi euh, ñu ngi tàkkine les deux millions de ton mais li ci des aussi xam nga mbay doo ko jël rek nga ni production mais mbay da ngay jël li ñuy wax chaîne de valeur bu yëpp parce que valeur ajoutée nga xam ne mooy jur croissance mooy jur yokkute réew mi ngi jóge ci bu ñu produire ba pare processus de transforme commercial transformation bi am ba muy dem ci fañ koy lekke te loolu nag la ci ëpp pour la plupart des produits eh, dafay dem bitim réew moo tax bu ñuy wax résilience tey jii ak souveraineté da ngay jàpp euh, agriculture boo ko waxee da ngay wax presque agro industrie da ngay am production bu doy wala production bu bu takku et production boobu li ci ëpp ñu koy valoriser fii ci réew mi muy jur ay liggéey di jur ay salaire di jur ay revenu mais aussi di jur croissance bu gën a kawe ci réew voilà mooy tey jii bon gis nga gerte gi problème chinois yi ak yooyu ak euh, Sonacos et euh, parce que Sénégal mi ngi lekk euh, deux cent mille ton de dawlin mais tey jii lu mu néew néew néew au moins huileries yi nekk léegi ci réew mi parce que léegi dootu Sonacos rek mm-hmm. waroon nañ mën di produire au moins cinquante pour cent genn wàll gi mm-hmm. nga xam ne mooy diwlin bu ñuy lekk ci réew mais tey jii boo leen boole huileries yëpp et àgguñu vingt pour cent ci mm. production voilà léegi nag euh, dañuy importer dañuy def yooyu et cetera bon baykat yi danañ kontaan trop bu ñu jëndee jaay ki ak yooyu mais réew économie am c'est un tout voilà donc euh, loolu nag euh, je crois que ñu ngi ci et alhamdulilah rabbil alamin bi président nationalisé maanaam jëlaat Sonacos delloo ko ci gafaka réewum ba léegi mm. Eh, soppi tur wi te Sunayor bi ñu ko tuddee ñu tuddee ko Sonacos eh, doomu réew mi maanaam def nañ ci jéego yu rëy depuis soixante mille neuf cent ba tey ji société boo xam ne dafa structurellement déficitaire woon voilà ñetti exercice yoo xam ni eh, dafay am ay bénéfice mm. ay réserve am mi ngi yokk le capital mu ngi yokk Sonacos mënul woon dem ci banque yi ñu labal ko xaalis mais léegi Euh, avec restructuration finale recapitalisation bi et kii maintenant nag des na ay investissement ñu war def ci matériel bi mm. ak aussi nu ñu régler le problème approvisionnement ci gerte nga xam ni et li ñu soxloo ci gerte ak mu nekk muy jege euh, deux cent mille tonnes jëm kaw mm. euh, war nañ ko mën a am pour mën a suñu usines yi rentable parce que Sonacos maa ngi fàttali ko point mooram mooy point bi nga xam ni boo ko jotee euh, ci lay dépense am ak ay charge am ci la koy équilibré cent cinquante mille tonnes la voilà donc alors que année yi passé léeg-léeg nga dégg ay vingt huit mille tonnes léeg nga dégg ay soixante sept mille tonnes ak yooyu bon xam nga kooku euh, rentabiliser sa usines yi sax ak sa sa investissement yi euh, dafay jafe mais heureusement am nañu un nouvel modèle économique boo xam ne léegi non seulement ñu ngi ci de ñu ngi importer de l'huile parce que njëgu diwlin euh, kii na di ko jaay ci réew mi mm. bu njëgu gerte gën a intéressant à l'extérieur jaaykat yi mais aussi di huile ñaani yooyu ngay dégg yooyu dellusiwaat na mm. euh, beneen bi ci des mooy euh, fexe daal ba aussi ci wàllu jéggaani dëwlin bitim réew mm. gouvernement bi jël ci ay mesures yoo xam ni dana tax eh, njëgu dëwlin bi jóge bitim réew Euh, euh, du yàq production diwlinu gerte fii ci fii ci fii ci fii ci fii ci réew mi mm. c'est la même chose pour affaire suukar bi gis nga jamono yàlla covid bi mm. bu fi CSS nekkul ah. Sénégal dootul lekk suukar mm-hmm. te CSS lu nekk wax nañ ko ko mm-hmm. voilà problème yi CSS am daanaka moom la Sonacos am mm. ci fraude mm-hmm. parce que suñu mbokk commercant yi et eh, boo leen déggee way nangam nangam mais euh, ñu nga ciy dem tey jii ñu am ay liggéeykat yu normal di leen fay euh, daanaka barewul wala buñ leen dee fay duñ leen fay la war et aussi euh, la ñuy dem jënd bitim réew ñëw fii jaayaat ko buñ doon sax réinvestir ci économie bi ñu gis ko mais demeewul noonu te réew mënul dëkk rek ci di jéggaani bitim réew di jël si ñëw di jaay mm. kooku amul benn réew ci àddina si bu développé waag loolu voilà donc euh, léegi nag dem na ba dëkk tubaab yi sax nga xam ne ne yooyu industrie polluante ay pharmacie ay métallurgie yu kenn xamul dañ ko jëloon léegi ñu ñu yóbbu ko ay Chine ak dans les pays asiatiques mm-hmm. parce que ñoom ñëpp léegi ñu ngi wax ré réindustrialisation mm-hmm. te àddina bii ni muy évoluer léegi nee naa ni nekkatuñu ci un monde euh, en crise mais dañu nekk dans un monde de crise donc mm-hmm. crise donnée structurelle la nga xam ne de plus en plus réew bu ci nekk da ngay fexe la ngay soxloo ci wàllu dund ci wàllu économie et da ngay bëgg li ci ëpp nga am ko ci sa réew ba nga xam ne la ngay jaay ci marché bi day nekk loo xam ne xëy na nga jaay ko ñàkk ko nga boo ko jaayee du la wàññi dara gis nga tey ji indi jëkk ni ki ne nee na blé bi bu ko bu jaayee dafay dafay am problème mhm. donc réduire na fortement li mu doon kii gis ngeen diggante Russie ak Ukraine mhm. Euh, ni mu demee ak situation bi mu créé ci àddina si. Hmm. yamul rek ci ñu réew gis ngeen inflation bi am ak les chaînes logistiques ak yu kenn xamul alors que ñun am nañu macha allah suuf su dey hmm. am nañu nit ñu mën liggéey ñu xereñ macha allah ndox bu jógewul ci kaw asamaan si mais ci su suñu suuf yëpp daanaka ndox la. et aussi euh, am nañu ay dex ak yu am solo yu wër réew mi et climat bi macha allah baax na. Hmm. donc daal ni président Macky Sall waxoon nii réew mi cëslaayam ci wàllu koom-koom mooy mbay mbay moo ko mën doxal ndax mbay non seulement dana jur ay alal ci réew mi waaye nag dana fekk dana def fex fexe ba li ëpp ci sénégalais yi nga xam ni au moins soixante ba cinquante cinq pour cent et dana mën tax ñuy am ay revenu dana mën tax ñuy dund dana mën tax ñuy tedd te loolu bu amee et ñee jóge ci dëkku kaw yi di ñëw ci dëkku taax yi dana wàññeeku mais aussi ñee jóge fii di dem immigration nga xam ne problème bu rëy la et dana dana dana wàññeeku donc léegi daal defe naa ni euh, ak li ñuy wax le PAP 2A après Covid bi muy programme euh, accès euh, programme ajusté et accéléré taxaw na ci li ñuy wax politique de résilience mooy fexe ba réew mi sukkandiku ci ay alalam yi mu am ak koom-koomam bi mu am fexe ba li ci ëpp ci koom-koom boobu di objectif am du doon lu may fexe ba euh, li Sénégalais yi soxla seen besoin ak seen ay problème koom-koomu Sénégal di ko régler hmm. la ñuy jéggaani bitim réew ba nekk loo xam ne lu néew la voilà nga xam ni bu yenn choc yi amee comme choc bu bi comme choc bii am diggante Ukraine d'ailleurs pour président Macky Sall ma nga jëm seeti Poutine ci turu pays africain yëpp mm. alors que ñun tey jii euh, Afrique moo waroon nekk euh, le grenier du monde waaw fi nit ñi di daw di wut si ndax lépp am na fi parce que am nañ ko et puis suñu dëkk yi yàqoogul ci wàllu environnement ak ak yu mel noonu waaye nag euh, def naa ni eh, nit ñi am nañ ci conscience et bouleversement yi am ci monde bi même crise Russie bi Ukraine bi xëy na ay kenn bëgg ko waaye nag euh, am na jàngat ak xalaatin yu bees yoo xam ne indi na ko ci nit ñi et aussi wan na ne ni doxal bi nga xam ne daal mën na mën na moom sa bopp daal surtout ci wàllu koom-koom et puis surtout moom sa biir defe naa moo gën a wóor moo gën a woon ñu des ci diwlin bi moom laa jëloon exemple ci ndoxteel bi li nga wax ni yépp euh, xëy na lu mën a nekk la mais diwlin bi euh, xëy na li ciy xaw a euh, indi jàqare mooy da nga ne diwlinu gerte gi cher na cheraay boo xam ne xëy na sénégalais duñ ko mun jënd est-ce que foofu itam amul pexe yoo xam ne mun nañ ko def ndax tey ku am Sonacos di bay ci gerte li Sénégal di bay war ngaa mën a assurer au moins xëy na lu ëpp ci li nit ñi di soxla est-ce que ci wàllu gerte gi par exemple am na solution boo xam ni yéen waa Club Sénégal Émergent nga nekk aussi Sonacos gis nga ko euh, ñu mën koo doxal ba ba mu jur saafara ci jafe-jafe gi. waaw kooku def naa ñaari ñaari mbir lañu mën a euh, taxaw ci loolu. Mm. bu njëkk bi mooy fexe ba suñ doon Sénégal fexe ba dem ci production ci mbay maanaam li muy bay ci gerte mu dem ba ay 3 millions de ton te mën na nekk fi mu nekk. bu ñu fa yeggee diwlin bi dana mën a wàññeeku. bu nu yokkee parce que xam nga boo yokkee euh, production. sa ay coût maanaam li ngay dépenser pour am benn kilo gerte dafay wàññeeku waaw moom lañuy wax un peu les les rendements euh, ci wàllu wàllu koom-koom beneen ñaareel ba aussi mooy dëwlin bi ñuy jënde bitim réew ñu fexe ba teg ko ay taxes ak lempo yoo xam ni bu ñëwee ci réew mi et eh, dana nekk ci njëg yoo xam ni du fi neex jaay et loolu nag ñu cay jëlee ñu fexe ba dugal ko ci mbay mi dugal ko aussi ci usines yi unités yi nga xam ne ñoo nekk dafay dañuy transformer ba nga xam ni balaa yàgg unité yooyu danañ mën a am la ñuy wax compétitivité donc ñaari levier yooyu noonu ba fi Sonacos euh, nekkee jëkk nekk monopole ci njëndum gerte mais aussi ci jële gerte bitim réew et njëgu gerte bitim réew bi dafa am nañ ko mais léegi xam nga ak libéralisation bi loolu dana xaw jafe def mais nag dafa am aussi yeneen yi ñu tënk mooy UEMOA e bi ñu nekk mooy CEDEAO et cetera parce que même ñun bu ñu des denn xëy na dañuy jël yenn mesures yi et yeneen pays yi tam ñu dem jëndi euh, huile de palme jëndi ko Malaisie wala yooyu et indi ko seen réew parce que bu jógee Malaisie ñëw Sénégal euh, taxation bi trent cinq pour cent la mais bu jógee Côte d'Ivoire wala mu jógee Sierra Leone wala yu mel noonu et taxation bi euh, du weesu quinze pour cent waaw donc xam nga différence boobu rëy na donc am na ci daal ay mbir yoo xam ni am na bien sûr yombul nag mais daal li ci gën a am solo mooy fexe ba bay loo xam ni dana doy waaw wala sax mu ëpp nga xam ni léegi dana amana nit ñi xam nga ki nga xam ni amul lu may genn wàllu hectare am ci cinq cent kilos gerte xam nga kooku eh, dafay ci njëg bi lay yaakaar pour mën a yokk am amam mais ki nga xam ne am na cent tonnes gerte et fakkale xëy na di laajee eh, deux cent francs wala deux cent cinquante ci kilo bi moom bu ci amee cent cinquante sax daf ciy génn waaw parce que bu génnee frais mooy dama leen doo wax les rendements d'échelle mm-hmm. eh, maanaam daal euh, léeg-léeg euh, li may wax moom sa biir ak moom sa bopp ci wàllu koom-koom euh, amul prix mais am na coût am na coût il faut nga jël alal bu takku nga dugal ko ci il faut aussi nit ñi nga wan leen ni lii suñ ko defee ëllëg dana baax ci ñun nit ñi daañu kontaan waaye suñ ko deful topp ci yomb-yomb bu ëllëg ak si biree daañu yow suba lañ daan jënd bitim réew dootuñu ko gis. Mhm. wala dina nekk njëg boo xam ne ñun suñu bopp duñ ko mën jënd. loolu moo tàmbalee mooy li am tey jii ba africain yëpp. ñu ah. jóg dem Russie pour que mbirum mbirum blé beeg yu mel noonu waxaguma sax gaz ak pétrole. Mhm. ak inflation bi am ci réew mi. Mhm. en fait loolu moo ko li ci ëpp inflation importée la. Ah. am réew yi nga xam nag tey jii boo demee comme ay. Mali ki Niger ak yooyu nga xam ne sax ñu réew ñu am koom-koom bu am solo wala même Côte d'Ivoire gi nga xam ne mbay mi dafa am noo xam ne daf ko fa demee et boo xoolee inflation bi moo gën a néew li mu nekk Sénégal waaw ah, donc kooku nag ah, euh, ci euh, ay jàngat la yoo xam ni euh, war na war nañ ko def daal kon faaw ñu am politique bu leer boo xam ni nit ñi dañ ciy adhéré bu ko defee ñu mën a jubbantikuwaat jéem moom suñu biir politique bi leer na. Ah. li ci des mooy volonté politique. maanaam pas-pas. pas-pas boo xam ni dañ koy am. ni écoute su ma waree defar euh, euh, am na xeetu dépense yoo xam ni su ma ko waree def. Mm. dama naan daal tey li jëkk samay priorité. mooy ma fexe ba Sénégal moom boppam ci wàllu dund. mais est loolu Sénégal def nañ ko priorité. ah waa priorité la waaye nag ci ci ci këyit yi ci politique yi ak yooyu am na waaye nag eh, xam nga boo nekkee gouvernement jékki-jékki eh, liggéeykat yi jóg eh, jàngalekat yi dañu bëgg ñu yokk seen sol suñu sol waa santé jóg waa larme jóg waa policier jóg garde pénitentiaire jóg keneen jóg gis nga tey ji solde travailleurs yi li muy jël ci budget réew donc léegi pratiquement eh, salaire yi daanaka léegi mu àgg eh, ci at dan lu ëpp mille milliards. loolu daf ñuy indi ci xam nga Sénégal li muy am ci recette weesuwul mille milliards. boo jëlee loolu nga jël bor bi nga amee di fay bitim réew daanaka mu toll ci huit cent millions par an huit cent milliards par an. Hmm. Eh, xam nga la la cay des bareetul. mille deux cent nga bëgg ci defar hôpital. bëgg dafa investissement ci hôpital def ko ci lekkool def ko ci euh, tali def ko ci leneen ak leneen la cay des du bëri donc da ngay da ngay obligé di jéggaani bitim réew su fekkee am nga signature mel na ñun am nga pétrole am nga gaz nga xam ni bon. am gëm nañ ni ëllëg si biir daa mën a fay. Mm-hmm. ñu kii ko donc euh, euh, état bi li mu jël ci économie bi ci ressources économiques yi dafa xaw takku. surtout ci wàllu fonctionnement nañ ko président Macky Sall def na ci ay effort réduire euh, dépense de fonctionnement yi réduire yàq yi ci téléphone ak ci yu mel noonu carburant ak yooyu même léegi ba ci auto administration yi am na véhicule mesures yu fort yu ñu ci jël mais ba léegi des na mais il faut que ñu convaincre nit ñi que état mënul employé ñëpp richesse état créé wu ko état dafay prélever ay richesse di ko transférer mais ñi créer richesse moom mooy li ñuy wax entreprise yi mooy ménage yi maanaam ñi kii mooy yenn secteurs yi nga xam ne ñoo nekk dans les services ak yu mel noonu donc euh, euh, poids wu état ci koom-koom euh, waxuma ñu wàññi ko waaye économie bi bu yokkoo maanaam pourcentage bi état bi di représenté ci kii surtout dépense de fonctionnement yi ñu xool ko xëy na même enseignement beeg yi yëpp am na ay solution même santé bi parce que ragal naa ni tey jii gis nga fu mel na Ndakaaru yi école privée yi daanaka léegi boo jëlee ñetti école ñaari ña école privée la mm-hmm. te mel na ñoo gën fay mm-hmm. et est-ce que amul solution yi ñu mën a envisager pour jéem def un système de privatisation mm-hmm. ci yenn ordre d'enseignement yi à partir du secondaire jëm jëm kaw jëm université yooyu Euh, trouver ay système de prêt de euh, euh, pour le de bourse de pour des prêts pour l'éducation ak yu mel noonu le système de santé gis nga tey jii hôpitaux publics yi bon nit ñi ci ëpp même ñi nga xam ne am nañu possibilité dem fa te ñu fay dara hmm. parce que am na fonctionnaire la ñu kenn xamul mais de plus en léegi ci ci secteur privé bi la ñuy dem ah, te secteur privé bi clinique yi ñi ko yore mooy ñee liggéey ci administration bi donc talatuñu liggéey correctement ci ah. ci secteur public bi et ña nga ci secteur privé bi dafa gañ a xaalis donc loolu mënuñu ko daganal d'une certaine façon rek mhm. ah, créer donc am na ay mesures daal yu fortes yoo xam ni euh, bu ci kanamee euh, war nañ ko jël ci ci ci parce que parce que am na groupe sociaux yi ak syndicats yi am nañu tellement ba nga xam ni euh, tey jii gis loolu presque ci sous région bi benn gouvernement boo xam ni eh, nekk na ci jafe-jafe yi nga xam ne ay syndicats taxaw ñu yokk ay soldes ak ay indemnités mhm. neexul wax voilà donc mais man nag club Sénégal émergent laay jiite. ñun ay xeltukat lañu ay borom xam-xam lañu. et puis xam nañu li yoon ci wàllu koom-koom ak yu mel noonu. et am na loo xam moo tax de suñu déclaration bi génne nee nañu et syndicat yi ak yenn force sociale yi war nañu euh, am def euh, preuve de responsabilité ba ñu xam ni jamono bi ñu toll naqa dina metti na. te état bi boo gisee sax njëg yi naawuñu nekk multiplié par deux def déjà y a de trois cent cinquante milliards bu dugg pour maintenir prix yi waxuma nag dugaluma ci njëgu essence ak gasoil ah. dugaluma ci électricité waxuma soutien bi ñuy def ci bourse familiale yi nga xam ne plus de quarante trois milliards ñoom lañ ci mujj def ak yu mel noonu donc jamono nag mënul am nu mu demee ba nga xam ni truc et ensuite beneen bi nag mooy aussi fexe ba Sénégal xam nga boo produire lu bare richesse yi gën a bare njëg day wàcc waaw mais bu bu réew de produire loo xam ne dafa néew mm-hmm. di jënd bitim réew lu ci ëpp ak coût yi léegi transport euh, international bi nekk coût euh, conteneur yi euh, le transport aérien au niveau et le transport maritime mm-hmm. ni mu yokkoo njëg du mën a wàcc mm-hmm. voilà donc yooyu nag ay ay jàngat la yoo xam ni et eh, ñun ñu ngi koy wax donc na réew mi gën a renforcer li ñuy wax politique de résilience et de souveraineté économique maanaam jéem a moom sa bopp ci wàllu koom-koom kooku nag mënoo jóg rek moom sa bopp ci lépp. ci lépp waaw. waaw mais am nga ay priorité donc priorité bi njëkk nag mooy fexe ba daal wàllu dund. et ñu fexe ba daal li ci ëpp buñ ko amul benn réew amul souveraineté ci wàllu dund à cent pour cent mm-hmm. waaye nag bu ñu àggoon soixante sax jëm quatre-vingt mm-hmm. defe naan dina baax alors euh, bonne gouvernance itam wax ngeen ci yorin wu sell euh, souvent aussi euh, syndicats yi gis nañu seen ay revendication seen ay laaj mais euh, toujours ñu ñu ci bari itam dañuy wax ne état war na ko mën ndax ma ngay def loo xam ni moo gën a xëy na ñàkk doon farata ñuy wax yenn saay train de vie état euh, xëy na yenn mbir yoo xam ne yu mën a xaar la euh, moonte dañuy gis état nekk ci di ci def alal gu bari ñoom itam dañuy jàpp ne li ñuy laaj àq ak yelleef la yorin wi itam ce que bokkul ci li tardé réew yu mel ni Sénégal ah bien sûr bien sûr day gis nga euh, déclaration bi ñu mujj génne. et euh, wax nañ ci ni cëslaayu émergence boo xam ni dafa vertueuse maanaam euh, émergence bu mucc ay cëslaayam bi ci jëkk mooy et li ñuy wax inclusion sociale mooy fexe ba li ëpp ci nit ñi bañ a nekk ñoo xam ni développement réew mi daf leen wàcc gannaaw ay ndóol lañu ay ñu ñàkk lañu parce que kooku bomb la ci réew bu kalaatee day tas réew. donc képp ku yore réew di wut émergence. loolu war nga ko bàyyi xel. je crois que wàllu président Macky Sall ak li muy def ci bourse familiale carte d'égalité des chances ak yu kenn xamul le PUDC ak yooyu. defe naa ni am na ci kii waaye baax na macha allah mais mais des na. ñu bàyyi ko xel. beneen bi et mooy li ñuy wax sécurité. réew mënul dem te amul sécurité. non seulement sécurité ci biir. mais sécurité ci biti alhamdulilah gouvernement bi def na fukki yu baax parce que commissariat yi gis nga léegi presque foo amuloon commissariat léegi am na ko brigade ak légion de gendarmerie presque bari na ci réew mi et particulièrement ci zone frontière yi muy zone frontière Gambie zone frontière Mali bi vers la Guinée vers la Mauritanie waaye eh, gis nañ ni fan yi eh, ci wàllu sécurité si eh, réew mi Sénégal bon loo ci wax wax mm-hmm. ci réew yi gën a sûr au monde la voire Euh, kaaraange moom ak euh, du doy ci réew. kaaraange non seulement ci biir réew mi mais ci bitim réew. et ñetteel ba moom mooy li nga wax léegi mooy gouvernance maanaam yorinu réew. Euh, président Macky Sall defe naa biñ ñu koy fal li mu doon wax gestion sobre et vertueuse maanaam yorinu réew boo xam ni dafa yaxanal alalu réew mi. Mm. ba pare mu tegu ci maandute ak njub mooy vert vertueuse et gis nañ nag ci wàllu yaxanal bi macha allah ay jéego yu am solo def naka ci ci wàllu facture téléphone yi ci wàllu dépense état fonctionnement yi e ci wàllu même ba ci auto administratif yi ak yooyu waaye nag mën na gën a jëm kanam mais fi réew mi léegi gën a sooxee mooy eh, yorin wu sell bu maandu bu alalu ñëpp mm-hmm. sellu gi mooy dafa mel na daal e, e, nit ñi e, niñ leen war a tege ci yoon maanaam muy enrichissement illicite mm-hmm. gis nga dossier yi ak ni mu évolué woon ah, détournement waaw li ñuy wax ay phénomène détournement deniers publics OFNAC ak yooyu yëpp dem na d'ailleurs ba citoyen yi léegi di laajte kuréel yooyu lu muy jëriñ ah. parce que kuréel nee nañu bu fekkee ni la muy lekk ci xaalis moo ëpp la muy joxe ci njëriñ mm. daanaka Euh, seetaat ko wala sax euh, supprimer ko jot na donc daal ci wàllu foofu li may insisté surtout mooy sanction waaw ah, di nga Sénégalais yi eh, bi la am santé amee ba président jël mesure bi mu jël ci ministre bi eh, nit ñi rafetlu nañ ko non pas nit ñi dañu soxor waaye ku def euh, ngóora ñu sargal la teral la njukkal la waaye nag koo xam ne aussi sa yorin dafa xaw dem ba du sax xëy na yow directement parce que. nee nañu nga jiite waaye comme yaa nekk ca bopp ba voilà nee nañu eh, faute bi dañ koy imputé ki ki ñu koy ki ñu koy teg mooy ki nga xam ne moo ko def. ak xëy na chaîne de commandement bi yëpp. waaye responsabilité bi nag kilifa yi nekk ci kaw. Mm-hmm. ñoom ñooy nangu responsabilité bi. Mm-hmm. mooy indi nga gis koo xam ne lenn am na comme en Tunisie. Mm-hmm. bi lu mel ni amee fii en deux mille dix neuf avec même chiffre bi la. fukki bébé ak ñaar gaañu dafa démissionné. kon nag euh, wàll woowu daal ñun defe naa ni suñu quatre ou cinq dernières déclarations yi wala communiqué yi. loolu dafay dellu si suñu déclaration bu nekk. Euh, xeex wàllu corruption. ak wàllu euh, maanaam xeetu jël alalu alalu alalu buur alal bi ñëpp bokk. parce que loolu d'abord ressources yu néew yi ñu am. boo nee tey jii dama war tabax hôpital. et ñu fexe am nañ ko defee ba nga xam ni bu ca téeméer naroon dem. ñu fexe ba xëy na la cay dem dëgg dëgg dëgg dëgg bu matee fanweer euh, lu bare la lool te xam nga nag li nga jënde fanweer ak ñu prévoir woon téeméer du bokk ci qualité boo waree jënd fil goo xam ni fil bu câble la bu dëggër boo xam ne moo ci waroon dem da ngay dem jënd ci filu chinois yi kii boo waree jënd ay fusible yu baax na ngay dem jënd fusible boo xam ni kii nga xam ni bu bu court circuit amee Eh, la muy war kii néew ma nag loolu moo waral foofu de mais dama dama dama lay wax ni hmm. corruption dangereux gis nga fii euh, immeuble yoon yi amoon fii Maris hmm. non seulement dañ ko mujj évacuer parce que da daanu hmm. mais état bi mujj gi dafa dépenser war xaalis bu bare pour indemniser leen yóbbu leen feneen yàq alalu alalu réew mi la donc yu mel noonu daal tey jii dañ ko war def axe ba nga xam ni et puis di jël sanction yi nga xam war ba nga xam ni eh, réew mi am na loo xam ni eh, ñi koy sañ dootuñu bari voilà euh, def naa ne nag loolu. ci wàllu politique gannaaw ba moo waxee inclusion sociale fexe ba aussi ne parce que réew mi aussi bi président Macky Sall ñëwee léegi ndóol gi wàññeeku na ci téeméer yooyu jël juróom. Mm. waaye puisque nit ñi dañuy yokk dafa mel ne presque wàññeeku. Ah. mais boo ko xoolee même ci taux yi. Sénégal daanaka ci ñetti yi nit yoo jël kenn ki ku ñàkk la wala ku ndóol la. Mm-hmm. bare na mm-hmm. boo ko jëlee ci dix-sept à dix-huit millions. Ah. bari na voilà donc euh, loolu aussi euh, mooy waral li ñuy wax inclusion sociale mooy maanaam fexe ba développement laa waale mboolem doomu adama aadama wala li ñu ëpp ci ñoom e sécurité wax naa la ko donc yooyu mel nan tey jii ay priorité la moo tax d'ailleurs Club Sénégal Émergent wax ni élection xam nga législative mooy presque élection gouvernement mm-hmm. bokkul ak élection président parce que régime présidentiel lañu nekk donc gouvernement bi war a ñëw gannaaw élection yenn yàlla def mu dellu dem ci jàmm ak salaam nekk élection yu leer yoo xam du am benn contestation gouvernement boobu defe naa ni euh, en plus bien sûr de croissance ak yu mel noonu mais euh, ci priorité xeex ñàkk ak ndóol inclusion sociale priorité la war def sécurité parce que du sax sécu du uniquement sécurité intérieure mm-hmm. mais tey ji réew yi war yëpp yëpp yëpp yëpp euh, ay réew yoo xam ni dafa instable te boole ci am na phénomène yu mel ne djihadisme ak euh, déstabilisation parce que tey jii réew muy xeeñ gaz bu bare ak pétrole parce que Europe euh, tubaab yi euh, bi leen Poutine bloqué ci kii gis nga chancelier allemand presque li mu fi ñëw barewul mm-hmm. mais gis nga immédiatement chancelier allemand bi dafa ñëw fii Sénégal mm-hmm. lu mu fi doon wut si mm-hmm. li ci ëpp mooy fexe ba nu ñuy fexe ñoom ba gazu Sénégal ñu ñu ñu ñu kii ci donc réew nag bu nekkee noonu am gaz macha allah bu am solo am pétrole bu am solo Eh, ñu wax ni sax des euh, réserves yi Sénégal am ba léegi eh, nit ñi waxaguñ ko. Mm-hmm. xam nga réew moomu ñi eh, ñii raas dem. Mm-hmm. ñii gàmmoog ñii raas dem dañuy dañuy xaw bare particulièrement ci ci dëkku bi yi. Mm-hmm. lu ko tas. waaw Irak lu ko tas. ak yooyu donc euh, ñun sénégalais yi yëpp war na moo tax d'ailleurs club Sénégal émergent wax ni non seulement affaire sécurité ci Sénégal waratul nekk rek mbirum gouvernement. dootu nekk mbirum état mais dafa war nekk mbiru citoyen sénégalais bu nekk parce que suñu bakkan yi ñun ñu ñëpp moo nekk enjeu par rapport ak sécurité et suñu réew moo nekk enjeu et suñu jàmm aussi ak salaam moo nekk enjeu donc euh, war nañu fexe daal euh, ba ñëpp am conscience boobu ba nga xam ne chaque sénégalais dana nekk un soldat maanaam boo gisee kuy def lu ko lu ko sudul noonu di agressé wala def yu mel noonu wala nga gis ay nit ñuy daje di réunion di def yu kenn xamul pour euh, tasaare réew mi wala indi fi fitna et yow ci sa bopp war nga xeex loolu war nga fexe ba buur mu yëg loolu waaye sénégalais nag léeg-léeg <laughs> et du man rek wala bokkuma ci mm-hmm. dafa gaaw ci ñoom te kooku nag réflexe la boo xam ne réew bu nekk daf ko war a ah, daf ci war a te ay du yem si bopp borom jërëjëf président euh, club Sénégal émergent PCA itam bu Sonacos monsieur Youssou Diallo ñu amoon mbégte lool dalal la ci démb ak tey yaakaar ne li ñu fi waxtaane yépp dina doon njariñ ngir ñi nga xam ne ñoo doon déglu euh, amoon nañu mbégte en tout cas dalal la ci ci émission bi voilà dama maa ngi lay gërëm di la sant et surtout di gërëm aussi waa membre club Sénégal émergent yi mm. yàlla xam na ni ay cadre lañu sénégalais yu engagé et yoo xam ni macha allah léegi defe naa réew mi ci boppam day xaar et jàngatu club Sénégal émergent ci situation yi am bien que tey jii ñu ñuy jàppale président Macky Sall la parce que par rapport ak émergence réew mi développement réew mi ni mu ci taxawee mais aussi du ñu du ñu hésiter bu ñu gisee ni nangam doxul kat euh, ñu ni nangam doxul et sénégalais yi nag dafa am ñaar dafa am ñoo xam ne naan butéel bi kat euh, dara nekku ci wala euh, genn wàll gi dara nekku ci ak ñi naan et eh, bouteille bi de fees na ci genn wàll donc la bouteille est à ci vide et à moitié pleine donc bu ñu gisee ay jéego yu gouvernement bi def ci régler problème sénégalais yi danañ ni kat lii rafet na danañ ko applaudir bu ñu gisee loo xam ne que day sooxe wala yu mel noonu et eh, danañu fexe ba reeteet ko ñëpp dégg ko mais aussi du ñu yem ci reeteet danañu wax ni kat lii pour saafara ko lii la ñu war def te defe naa ni comportement boobu aussi baax na muy ñoo xam ni et xëy na naam ñii bokk nañ ci parti ñi bokkuñ ci waaye nag gëm nañ ni Sénégal gi leen boole mooy di gën a fort et defe naa ni débat boobu nag may woote d'ailleurs ci élection législative yi ñu jëm muy débat de programme waaye yaa rafet yaa ñaaw yaa ceci yaa cela yaa fi def lii yaa fi def lu ñaaw lii loolu amul solo waaye nañu jël problème sénégalais yi fii ñu toll ñu waxtaane ko ku ci nekk ñëw wane ay pexe ak ay nisar yi nga xam ni ëllëg ak si biir suñ la soo amee majorité nga mën ko doxal pour que réew mi génn ci jafe-jafe yi et gën a am taxawaay ci Afrique et puis gën ci am ci ci monde bi fi may jeexale nag mooy di la gërëm di la sant ci taxawaay bi nga am ak surtout sa professionnalisme et aussi réew mi FM nga xam ni macha allah su may su may wëlëre lañu su may xarit lañu mm-hmm. Eh, ci taxawaay bi ngeen am te dama leen di déglu souvent et damay wax sax souvent nit ñi eh, xëy na léegi eh, po fecc ak wax loo xam ne xëy na dafa sensationnel diw xëy na sàkku na diw diw def na lii diw taal na fii diw nangam nangam rey na nit diw mm. taal na fii et cetera loolu léegi de plus en plus ak réseaux sociaux yi leen nit ñi di gën a suivre mm-hmm. waaye nag loo xam ne day defar réew mi mm-hmm. def naa ni yéen nag ci ngeen ci ngeen taxaw deer seen tur sax wuyu na ko <laughs> voilà voilà jërëjëf jërëjëf yow tam ci disponibilité bi ñuy gërëm ñi doon déglu gërëm jaawu jàll mi nekkoon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi dégluwaat leen émission démb ak tay bi ci suñu chaîne YouTube réew mi officiel dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaanee leneen ak keneen jàngeen ngeen jëf ñu yendoog jàmm